asalaamaaleykum mbokki internet allo Dakar TV tey ñi ngi dalal sunu gan gu mag benn artiste bu ñuy wax euh, Fanta soxo ñu gën ko xam ci turu artiste am Fanta Style euh, nekk tam sët ci ñaari musiciens yu mag yu nekkoon ci réew mi fii muy ku mel ne Soundioulo soxo ak euh, Pape Seck Serigne Dagana Fanta ñoo ngi lay dalal ñoo ngi lay ziar. waaw Sall maa ngi leen di fay ah, di leen nuyu di kontaan ci invitation bi. waaw tey Allo Dakar kontaan na dalal la lool di la laaj ci question bu njëkk bi euh, musique nan la nan la ju nan la juddoo ci yow. waaw euh, musique man c'est inné en moi maanaam dama dama si juddu dama si juddu parce que sama grand-père paternel il était le roi de la kora si soxo ñëpp xam nañ ko euh, di côté maternel Pape Seck Feu Dagana muy groupe bu groupe Africando mu nekk ci sama deret bu njëkk ba pare ma bëgg ko ah ma bëgg ko mu nek sama passion voilà. Euh, seetu nañ tamit né contrairement ak euh, jeune yu bëri ñi nga xamné dañuy dugg ci musique bi jël mbalax bi mbaa ñu jël reggae wala mais yow da nga am sa style bop style bi mën nga ñu wax ban style la. waaw Fanta Style style bi muy def mën naa ne world musique la musique du monde parce que damay mélanger beaucoup de musique damay def acoustique rhythm and blues hein, Euh, folk blues mandagne nous ma koy def parce que tamit dama jàng toute musique j'ai fait l'école nationale des arts en 2005 donc j'ai appris la musique fofu donc de de là j'ai la commencé comme tu blues la njëkk jàngee musique ci blues bi la njëkk forcément day influence voilà mu am influence mhm. parce que c'est ma famille traditionnelle la mhm. mais man je mélange euh, euh, la traditionnelle ak moderne bi. tradi moderne la moderne. voilà c'est ça. noonu. Mhm. tey ñaata at nga duré nga def musique bi. musique mën naa ne maa ngi ci de parce que c'est en 2005 que j'ai commencé à me professionnaliser maanaam sama papa yóbbu ma ma madame musique non mhm. donc ba ci parce que dans naa foyer daan naa ko di dem ci studio yi fréquenter rappeurs yi yi comme ay bidéo bu bees affaire mais après quand le vieux a su que la musique là donc mu ne ma demal nga dem euh, seeti école musique bi fu mu mm-hmm. ma inscrit la donc 2005 je peux dire mm-hmm. là c'est commencé professionnaliser ou mm-hmm. ainsi de suite euh, bobo ba léegi ñaata album nga génne euh, defaguma album Nak defaguma album mais ñu ngi ci préparation sortie bi inshallah allah ñu ngi studio. Mhm. donc xamna bientôt. Mhm. voilà. Euh, tay bo doon xol tay évolution musique sénégalaise. Mhm. tay ban ban regard nga ciy porté. waaw euh, musique sénégalaise mën naa ne léegi gars yi ñu ngi commencé yeewu yeewu tuuti ci musique bi. parce que bu njëkk bu ñu demee tey ba musique sénégalaise nga gis ñuy teg sénégalais ci ay Trace TV wala feneen ak feneen comme les Viviane nga xam ne kon donc ñi ngi ñi ngi ñi ngi avancé tuuti mhm. ñi ngi avancé donc jeune talent yi tamit ñi ngi gëstu xam nañ ne musique du foo il faut nga jàng ko mën nga am donc bi mais tamit il faut nga jàng ko xam am ci tuuti expérience mhm. voilà c'est vrai que fait un album mais j'ai participé à ci ay activités musicales à des festivals festival est-ce que vous avez ñu ci limal quelque waaw euh, festival quelques festivals ici. le festival Acoustica Dakar c'était avec des Espagnols Nous avons ne dañu nous def festival ak quelques artistes ici. donc euh, eu le festival Flamingo Le euh, 6 décembre Uh-huh. j'ai été aussi euh, défendant un festival aussi Folk festival international avec Baobab communication avec Pape voilà euh, j'ai été aussi représentante du Sénégal hein, ci émission Kassanga Sanga 2 Case Sanga 2 bi Bamako mm-hmm. voilà ak Fesman voilà Je donc mon naa ne euh, kii yu gëna a mag yi nga xamante ne def naa ko joué naa ko fii. Mhm. voilà. Mhm. Euh, tey euh, ambition yi nga xam mom nga am ak projet yi à court et moyen terme peut-être mhm. dans un an dans deux ans tay lan la. bon sama ambition là ñi ngi ci préparation sortie single bi. que nga xam sénégalais dinañ ko am bientôt dans quelques jours. voilà album bi tam ñi ngi ci préparation bi. Mhm. après album bi tamit on a des projets. hein, des projets comme euh, ñi ngi bëgg euh, def euh, projet ci jigéen ñi. Mhm. jappelé jigéen ñi ñu. parce que légui le monde est féminin je mhm. peux dire parce que jigéen ñi ñoy ñoo yor bi donc à ce que nous xeex une position wam de la femme. L'émancipation de la femme on peut mm-hmm. dire. Mm-hmm. donc au Sénégal et dans le monde entier. pourquoi mm-hmm. pas. Justement, uh-huh. euh, Tu justement ci question à répondre. rebondir as boo gisee jigéen ñi wax nga léegi problème d'autonomisation. émancipation problème autonomisation. tey boo gisee jigéen ñi ci qu'est-ce que ça te fait. je leur dis bravo franchement. parce que léegi bu ñu demee ba nga xool jigéen ñi ñoo jiite lu bari. donc ci musique bi on a des ambassadrices. y a les Kumba Gawlo Seck. Viviane xam nga. fu ñu dem en Europe ou à l'étranger dañ leen di respecter. Mm-hmm. ci kaw li ñuy def. Mm-hmm. comprendre nga côté ministère yeeg jigéen yi jiite. Mm-hmm. yëpp man daal bravo daal lay wax aux femmes. parce que nag ay jàmbaar lañu. franchement ay jàmbaar lañu voilà. Euh, bu njëkkoon da nga daan dégg da nga daan gis ne musique ndaw bu ne da nga koy jéem a def say parent duñ ci ànd. Mm-hmm. ndax xëy na peut-être euh, la ca nekkoon. Mm-hmm. Ah, ci lu bon. Mm-hmm. tey nga gis ndawu Sénégal yi ñu ci bëri tey commencé di yëngu ci wàllu musique bi tey ban conseil nga am boo leen di jox. waaw euh, ndaw yi nekk ci musique bi dama leen di conseil bi ma leen di jox mooy ni que. ñu ñu gëstu ah, ñu jàng parce que musique tam du foo. musique du fo am na def pour siw amna ñukay def par passion amna ño xamné métier lañ ko def té métier la. Mhm. musique industrie la. Mhm. musique avancée na donc man conseil bima ma di jox moy dañuy mhm. jàng musique ñu éviter di def. Euh, musique bi comme fo quoi loo xamante comme amna yu bari yooyu gis tay da ngay waru doo ko wax mais bon ñi nga xamante ne musique la ñuy def xam nañ ne yenn yi loon du musique mm-hmm. voilà donc nañu jàng ñu respecté ko teg ko ci yoon mm-hmm. voilà sunu gan ñu ngi lay laaj rek euh, lan ngay lan mooy sa dernier mot looy tàggoo tey sunu sunu internautes yi euh, waaw maa ngi euh, remercier monsieur Sall Allo Dakar ah ci invitation bi. ah Fama sama numéro man bu ñaawul boobu ah, sama staff ah sama borom kër di remercier tamit sama papa ak sama yaay ils m'ont beaucoup soutenu waaw ah, di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bëgg Fanta. waa xam nga nag surtout surtout Sunjulu Sissoko du nu seet si fii ak surtout Pape Seck Serigne Dagana ñu koy bàyyi noonu muy dem. xanaa dégg ñu may benn acapella pour sunu sunu internautes yi. d'accord. donc ma may leen acapella ci ci bi. ci <laughs> woon ñun ñaar rek woon ñun ñaar rek woon amul fu nu jaarul woon man ak yow tuuti tànk yàgg an bokk làng ah, ah. sama carrière tam y a des gens yo xamantene participer nañ ci lu bari ah ku melni euh, Baba Mal mi nga xamantene mo nek sama parrain euh, il m'a offert aussi une guitare d'un million cinq cents. Ah. Il ma gagné Kaz Sangabi, représentant représentant Kaz sanga euh, aussi le président de la République Abdoulaye Wade hein, qui m'avait reçu, même bourse d'études de musique en France. ma may ma tamit million yu bari <laughs> ak euh, le ministre l'ex ministre Agibo Soumaré aussi qui m'avait reçu tamit may ma tamit momit encouragement ma comme drapeau rew mi la don yobbu donc ils m'ont beaucoup soutenu di remercier tamit Gisepen wa Gisepen a participé na ci sama début carrière lu bari bari franchement ak ñep ñi nga xamantene dal jappalé nañ ma ku lim da ngay joom voilà mi ngi noonu. Euh, jërëjëf euh, Fanta Cissokho jërëjëf euh, sunu mbokk internet yi ñu doon seetaan tey ñu fàttali leen amoon fi gan gu mag gu ñuy wax Fanta Cissokho ci tour artiste ñu koy wax Fanta Style di préparer conférence de presse bu mag pour préparer sortie single am donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen jox beneen yoon dig daje.